يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض أيوم الأرض عليك يا ستار استرنا فوق الأرض وتحت الأرض أيوم الأرض عليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مبوك جولتي أمد جامعي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا بو سنتي يالا دولي سنتي يالا بواح دي سنتي يالا بك حمد نسي باحا يا مكاتنا ملين دي سواتي ديف حديث رمضان di waxtaani ramadaan eh, bi nga xam ne ñu ngi leen ko baaxoo di ko indi bés bu nekk si weeri koor bi tey di guddi ajuma nekk guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñeneent night of 29 macha allah boobu tamit bokk si guddi yi nga xamee ne ñu ngi koy séntu ase guddi laylatul qadri mu tombe ajuma bu mujjee si weeri koor bi ndi weeri koori ren bi am nañ juróomi ajuma macha allah am nañ juróomi ajuma ajuma bu mujjee nekka guddi ñaar fukki fan ak juróom ñeneent bi man qaama leylatul qadri imanan wahtisaban xufira lahu ma taqaddama min zanbi rax ci doole mu ne aksiru salaatu alayya yowmul jumaa wa laylatul jumaa fa inna salaatukum maarudatun alayya xoolal xéewal boobu guddi ajuma ji salaa sallam mu ne nañ bari lu ñoo julli si moom guddi ajuma ak bëccëgi aajuma mu ne dul tax mu ne julli ñoo julli si moom yàlla def ko def dafa koo égali fa mu nekk Madinatul Munawwara diw doomi diw doomi diw mu ngay julli si yow sallallahu alayhi mu fay la yonent sallam mu ne man salla ala nabi sallallahu alayhi wa sallam salaatan waahida salla biha lahu ashara nga julli si yonent sallam benn yoon yàlla julli si yow fukki yoon bon nag nañ jàppaat ne guddi tey bi mbokk jullit yi mun naa nekk guddi laylatul qadri bi nga xam ne moom la ñoo ut yàlla subhaana taala mu ne xayru min alfi shahrin tanazzalu almalaikatu wa ruuhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xata matlai alfajr allahu akbar nag beneen sans la beneen opportunité la pour ñun bokk jullit ñu amaat guddi laylatul qadri tombé guddi ajuma laylatul jumaa macha allah nga xam ne guddi nangu ñaan la te am na si saa ijaaba am na si waxtu boo xam ne comme sallam waxee ne waxtu boobu bés bu nekk nag si bés bi nag si bés yi nag benn jaam bi si toog di si ñaan yàlla mbiri àddunaam am mbiri àllaaxiraam fekk yàlla jox ko lum ko laaj loolu sa salaam mu ne inna allaha yastahyi yàlla dafay rus nit ki taala ko loxoom mu doyle ko neen an yaru dafu sifra déedéet yàlla rusa loolu bon nag amaat na beneen chance mbokk jullit yi ñu ñaanaat ñaanal suñ boppa ñaanal suñ waajur ñaan suñ njaboot ñaanal bépp jullit ñantamit yàlla subhana taala aar julliti si àdduna wi yàlla sàmmal julliti si àdduna wi waaye yàlla may ñu ndam si kaw yéefar yi waaw yàlla may ñu ndam si kaw yéefar yi waaye yàlla boole suñ xool yi julliti ñu nekk a benn ñu ànd a nekk a benn lii yëpp suñ ko jaanee yàlla si guddi si kan la laamiñam bi nangu waaye ku ne yaa rabbi rek ku ne ya allah rek amal yaakaar bu ma sikne ne yàlla ya sa ñaan waaw boo ne ya allah rek amal yaakaar bu ma sikne ne yàlla nangu sa ñaan bu nekk ñu wara dund dundalaat ko rewi si jàng alquran faqra'u ma tayassara min alquran lu way moo ko alquran na ko jàng moo ko joote qul huwallahu ahad sar bi nga wax nañ leen ko yéen salaa sallam wax ne ku jàng ñetti qul huwallahu ahad ahadun mel ni jàng alquran nga jàng إذا زلزلت الأرض زلزالها بمجي جي من لا جانغ نيتي حاجه القران ناني سي سيدنا كو جانغ ديكو جانغ ديكو جانغ اك سار بومون بولي سي صلاه على النبي بولي سي استغفار استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله يونس صلى الله عليه وسلم جف بو ام جف جف بو ام tolof tolof boo am saay boo baree di wax laa xawla wala quwata illa billah yàlla na la si génnee waaye nag subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi boo ci wax rek yàlla jëmbal na la taati talarma sa arjana guddi ajuma guddi weeri koor nga xam ne jàmm yi jëf yu baax yàlla daf koy fulandil fay weeri koor dafa uto waaye guddi ajuma tamit dafa uti yeneen guddi guddi yi kon nag ñaari xeewal moo daje si weer bu màgga bi weeri koor ñoo tombe guddi ajuma bi nga xamee ne guddi nangu ñaan la salaa sallam mu ne nañ bari lu ñoo si moom kon nag nañ parewaat waajal ko ñu ñëpp ñu dundal ko kañ la moo commencé gannaaw timis bu ñu jullee timis ba pare rek daanaka dugg nañ si guddi bi bu ko defee nag mbokk mu sa alayhi salaam ni mu ko waxee rek yàlla dafay wàcce si asamaan juróom-ñaar mu ne fa hal min saa'ilin fa u'tiya lahu fa hal min mustaghfirin fa aghfir lahu fa hal min taa'ibin fa atuubu waaw am na kuy may ñaan man yàlla ma jox ko li ma ñaan wala am na kuy jégalu ma jégal ko wala am na kuy tuub ma baalal ko subhanallah loolu yëpp si guddi si yàlla ngi ñëw di laajte mën yàlla mu nga xam yàlla si yërmandeem ak baaxaayam war a wàccee boppam si asamaan ñu laaj waay waay mbokk yu accalee ñu jëm yàlla subhaanahu wa taala ñu dem jox ko lim ñu laaj mooy pour lan mu jégalu suñu bàkkaar luñ ko ñaan mu nangul ñu ko ñun ñoo soxla si yàlla waaye yàlla soxla suñun yàlla soxla suñun ñun ñoo soxla si yàlla bon yàlla boobu yërmandeem tànn bi mu wàcce si asamaan ak juróom-ñaar di ñu laaj bon nag nañ leen joxe suñu bopp yàlla nañ leen ja yaakaar yàlla nañ leen ñaan yàlla ndax yàlla mu ñoo nangul kon yàlla ñu yàlla nangul yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla ñu yàlla defal xéewal yàlla subhanahu wa taala jëfe rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna ya mawlana innaka anta rahim allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa wa qiyamana ya rabbal alamin allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin